ngeen def. waaw wax dëgg kay. lan leen lan leen fi def. lan leen fi def. ñuy door a ñëw ñuy sëpp sa waay di ko yóbbu. xanaa ma la sama ay yéen. ah yéen day yoon ñuy sëpp awo bi di ko lan leen sanal doomu aadama ngeen leen war a voilà deux autres avocats deux autres avocats du président Ousmane Sonko dans le véhicule empêche physiquement d'accéder au tribunal raison pour laquelle je m'adresse à la communauté pour les arrêter que actuellement ce, cette police là sénégalaise est en train de violer les droits de de, de, de, notre client, à savoir le client Ousmane Sonko, qui privé de ses, avocats. C'est ce message-là que je voudrais porter donc à l'endroit. Pour le moment, donc, le, le bâtonnier est en de faire son travail. Mais nous, en ce qui nous concerne, en ce qui nous concerne, nous sommes là et nous voulons aller au tribunal, assister au conseil et assister notre client. Mais malheureusement, la police n'a pas les armes. nit jarul yenn yi ñun yéen dañ leen respecté ndax seen tëri mais yéen jël ay ordre yoo xam ne di dóor ay bal di dóor ay bal sénégalais loolu loo gis tey jeex. ak Sall day dem de force day dem lu jeex du yàgg man moom maa ngi nii dóor leen ay bal sax rey nañ samay paas ci ay ma si des pour ma dóoree ay bal àjjana laa jëm ba ci membre ba sëy ñun Sénégal képp ëppale ñu fi dara parce que li fi ne ñu ñoo leen géral ba ñu nekk président tey ñoo ñooy bu ñëw jaar suñu kaw loo gis tey jeex. yéen xam ngeen ne baax kii jeexal na ñaari mandat la am yéen yéen moom mais du yoon yéen na loo xam ne waroo ko def parce que ku si ne am nga ay rakk am nga ay jàmbaar gars yi dañuy ay pal di dóor gars ay pal loolu day jeex Sénégal parce que ñun ñoo fi fal waa ji waa ji ñoo ko fal ñun mosuñu ñoo di violence fii Sénégal kenn mosu fi ñoo di violence jeunesse bi mosuñu ñoo di violence jeunesse bi saa leen gisee jàmm ñun yoruñu arme doo takk ay arme ana arme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 version rouge ñu ne ñoo ma ko bokk ñoo bokk Serigne Touba bokk Baye Niass bokk El Hadj Malick bokk Insa Ibn Mariama Sénégal looloo fi am mais nit ñi ñoo naan da ngay jéem a ñëw jaar kon ni nga rey sénégalais yi te man a rey man awa chef kuy sama chef mooy suñu borom non commandant bi boo xoolee xam na pacifique la parce que lu dul yoon du yoon lu dul yoon yow booy dafa ëpp waay dafa ëpp yéen xam ngeen ne lii dafa ëpp yéen Macky Sall ñun ñu ànd ak moom 2011 2012 dem guerre Ablaye Wade ba mu ngeen nangu muy rey ay sénégalais ndax lan Ousmane Sonko xalaatu sénégalais mais Ousmane Sonko wax na ma lan la Ousmane Sonko def Ousmane Sonko deful dara mais doomam doomam doomam di jàng école ñu koy dóor doomam warul jàng école Ousmane Sonko warul dem booy sénégalais yëpp laay woo si taan bi sénégalais yi nekk si mbedd bi booy nekk si mbedd bi yëpp nañ ñëw fii bu ñëwee fii la ñu door ay bal dañu door ay bal door nañu ay door bal yi duñu mos a bàyyi Ramon day bi foog li nga fi ñuy sëb aboo bi Ramon li nga fi ñuy sëb aboo bi loolu mënul ne nga ko doon bàyyi si dara tee kenn la bu kenn taw nañ door bali bali nañ ko door ay sol ay tegul yooyu amul kenn mu ay sol ay tegul yooyu amul dañu door ay bali ko day ci kër yi dañu door ay bali fa ñaaw laay ya fa ñaaw amé ni li tamit li ñu yoon ñun ñuy door ay bal wala ñu door ay lekk fa ñaaw ordre boo leen mën a jot pour seen peuple pour rey seen peuple loolu waroo leen ko nangu parce que un homme warul def lool warul jël sa traite bleu même bleu nit ku ñuul man ñoo bokk ndey ak baay ngeen jël ay bal wala ay lakk ma gëm ñu ko lar ndax benn nit firaaw na sax melul woon noonu firaaw na sax mi nga xam ne woo gënoon bon si ñëpp melul woon noonu mais am na loo xam ne waru leen ko parce que armée police gendarme ay joolaa fa nekk séeréer tukulóor mandeg Sénégal loolu la loolooy folklore Sénégal mais dóor ñu ay bal koo xam ne pacifique lay dox ñu koy tur ay lacrymogène am na loo xam ne xel moo la koy may doomu aadama boo demee sa gaale la nga toog wéet yow kese parce que alxam di nga xam luy dëgg man moom rey leen boo leen ma rey rek maanaam àjjana parce que ku ñu rey rek àjjana la jëm mais ñun bu soobee yàlla ñu musa jël arbre wala téen ko dóor mënul la nekk mënul ne yéen soyez conscient am na loo xam ne waru leen fii ay policiers yu bëri maa leen mag fuuf rafetul dafa rafetul rafetul du yoon du yoon yéen a def loolu du yoon yéen ay seen mag la Thank you. ñun ay jàmbaar lañu ñun ay jàmbaar lañu Sénégal ñun ay jàmbaar lañu ñu yoon tur ay arme ñu yoon lii yoon bi lay ñu yoon lii ngeen ñu koy tur yéen ñoo bokk ndey ak baay yéen ordre boo leen jot war ngeen waxtaan ak ñun parce que la ñuy ñor di dafa ñaaw dafa ñaaw dafa ñaaw bilaay dafa ñaaw dafa ñaaw dafa ñaaw du ñu yoon barke alxuraan dafa ñaaw yéen ñoo leen yéen ñoo far yéen ñoo ko defar réew mi dana gaal dafa war a ñëpp dañoo war a dund dund bu naay ñii di dund ñii di ñii di sonn loolu dafa war a jeex Sénégal vingt personnes sept ñu teg leen milliards de Sénégal ñii di nawet seetlu ñii di sonn loolu war na mën a ne loolu dafa war a jeex Sénégal yi waaw am na yoo xam ne dama koy dee deewoo ko sa taa boo fi yeggee bu dajoo ci dara taa bi nga juddoo fi nga tuur non jee ñoo ànd de parce que booy jee ñoo ànd mu ngi jee ñoo ànd xaaral ma jël jàngoo jee Campes Moral wol jeey wol jeey waaw loolu moom moo jaaduwul te ñi ñi fi gaañu ak ñi fi dee yëpp suñu doomu réew mi kese lañ kon nag Macky Sall na dawal moment yërmande am ni moment gaañ bi ñu gaañ xale yi jaru ka moom moom na xam ni askan bi muy dóor nii ñoo ko faloon démb askan bi muy dóor nii ñoo ko doon moment xeexal as askan bi muy bi muy dóor nii korog bi bi ko Macky bi ko Abdoulaye Wade oowee xale yi ñoo ko gunge kon donc moom na dawal moment yërmande te te bàyyi xale yi xam ni moment ñoom Ousmane Sonko moo moo nekk seen xol Ousmane Sonko la ñu bëgg te Ousmane Sonko doomu Sénégal la Ousmane Sonko du doomu Guinée du doomu du doomu Malien du doomu du doomu mama euh, bitim réew France yooyu Ousmane Sonko doomu Sénégal la te kenn kenn gënu kaa dëkk Sénégal fu waaye am si Sénégal rek Ousmane Sonko am na kon nag bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu wax ni Ousmane Sonko maanaam warul mën a nekk doon président pour lan parce que da doon président yàlla bu ma tuddee da nga yàlla président Sénégal li ko yàlla tuddee 2024 Ousmane Sonko boo doon président Sénégal am mu neex leen mu naqare leen parce que yàlla boppam bu tawee bu tawee nga ne taw bi yàlla taw yàlla du fi tawale da koy jël moment yóbbu ko fa neen yow yaakaar naa yow yaay buuse dem waaye taw bi moment fa mu ko war a tawee pare moment tawee taal bi ñu taal bis bi nii jaru ka te lii lépp naqaru naxaru xale yi moo waral ñu taal biis yi parce que amuñu fuñ ko jooytoo parce que ñoom ak ñoom ak ñoom ak wax ñu ngi si ñoom takk der yi moom di moment di leen di ay bal di leen di leen dóor moo tax xale yi amuñu fuñ ko mën a jooytoo lu dul jël moment li xam ne ataa beek moom yàq loolu moo tax ñuy def lii waaye fekkoon moment Sall jërëmoon na moment askan bi moom dina wax ni na leen bàyyi lépp si suuf parce que moom moo fi waxoon am na ñoo xam ne du ma leen boo leen laalee réew mi tàkk kon ñooñu du ma leen du ma leen laal moom moo ko waxoon am na ku fi defoon loo xam ne ni dafa ne bu gars yi waxee ne téye ko dafa ne du ma ko téye su ma téye moom a réew mi tàkk kon nag xamee loolu bi mu amee yërmande boobu war na ko na ko am si yërmande si Ousmane Sonko. yéex nañ ko gis yéex nañ ko gis si lépp waaw suñu place la défoncé suñu kër suñu teraanga yëpp fii la nekk Babacar Babacar Taïf lépp moom la. lépp mam la nit ku baax la moom moo ñu tax ñu jaay suñu bakkan pour lii nii pour lii nii parce que lépp lu ñu am fii lañ ko amee mais dëkk bi jàmm lañ fi ñaan li laay war a soli bu mën dëkk bi mën a am jàmm ñi ngi wax audio oh, oh, kilifa diine yi nañ ñaan ci lii ndax lii ñaaw na lii lii lii oto yi tàkk osa yi tàkk lépp tàkk nii nekk loo xamante ni si rafet na yàq suñu liggéey rafetul ñun jàmm la ñaan ci réew mi bu fekkente ne mën nañ koo am ñu ñaan ci balaa lii di jëm kanam bi mbir bi di xaw ñu ngi fi lépp fi la ñu fekk bii bi ñuy tàkk suñu kanam la lépp suñu kanam la nag mais jàmm daal la ñuy ñaan ndax ñun amuñu lu dul Sénégal Sénégal lañ am te kenn ñu ko yàqal waaw. naka nga dundee lii naam kat yéen seen yoon waaye yàq nañu seen mais on a ko géré li ñu koy géré mi ngi nii ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay divorcé képp ku fi nekk ñoo bokk nday amuñu xaj seen képp koo xamante ne am nga naqar ñu ñëpp dañuy jug taxaw. ñun ñëpp dañuy jóg taxaw si ñun Sénégal la quoi Sénégal voilà ok. Sarr man dafa am lu ma bëgg a wax loo xam ne loo xam ne mënul cest affaire yi donte jàmm la woote waaye dafa am loo xam ne si bu ko am. parce que président Macky Sall wala kon Macky Sall dictateur bu bu bi donc mënul nekk si dëkk bi tere nit ñi wax. tere nit ñu joxe seen xalaat si réew mi tere ni ñu poser ay question loolu mënul nekk si ban réew la ñu nekk gars yi nag ñoom ñoo ko défend patriote yi ñu ci bëri ñoom ñoo ko def parce que démb laa na leen waruñu woon nangu gars yi di taxaw buntu kër pro ga xam ne amuñu du mën a am accès sax dem ci boutique bi loolu waruñu ko woon seetaan donc dafa nekk ay mbir yoo xam ne si lu ñu war a luñu lu ñu war a lijjanti la comprendre nga man nee woon naa bu ñu xëyee dañ naan ko cas teg ko seen i yóbbu ko fu leen neex léegi loolu la ñu waru woon seetaan donc Macky Sall moom na xam na bés dina ñëw dina dugg si biir suuf si sax yi lekk ko munu si dara mu nekk ko ak mu naqari ko pro pro amul lenn lu ko def su lu bon wala su lu ñaaw da koo gën a bëgg réew mi gën ko xam droit gën ko xam respect gën ko bëgg doomu aadama gën ko nekk jullit gën ko nekk wàllu xàqan Macky Sall dictateur bu bon la. lan nga gisee lan nga taal bis yi nga xamante ne. mais léegi loolu boo ko bëggee comparer. par rapport ak sàcc yi ñuy sàcc suñuy milliards. ces bus ne représentent absolument rien moi je suis membre de la mafia kàcc kàcc. dugaguñu ci xeex bi ñu naa ah. depuis suba si ba léegi dañuy wër di xool di observer mais fii ak ngoon incha allah ñu ngi déglu suñu avocat ak sunu président soon son excellence Ousmane Sonko ñu ngi koy déglu ci biir. incha allah lu ko génn tey Macky Sall du fanaan ci biir palais bi ñun ñoo ko wax ñoo te on assume bus yi nga xamante ni moom la wax ne moom la lakk. bus boo ko comparé boo boo comparé benn bus par rapport ak Macky Sall lu muy sàcc Mame Mbaye Mame Mbaye Niang vingt neuf la sàcc au plus de trente milliards yaa may dégg les Farba Ngom c' est des hommes yi nga xamante ni ils ont des milliards te dañ ko sàcc bu ñu taalee benn putain de bus boo xamante ni moom njëriñuñu ñoom ñooy détourné ndey xaalis bi yes ñoom ñooy détourné xaalis bi mais euh, mais qu'ils aillent of oo oh, jàpp laa la wax xam nga lu tax parce que mënuñu nangu ñoom bus yi nga xamante ni dañuy wax ne ñun suñu bus la ñoom seen directeur yi fay nekk ñoom ñooy jël bus yi sàcc détourné xaalis bi et ñun lan lañ ciy gagné mais di tu tout vous pouvez imaginer depuis mille neuf cent o on a notre indépendance yaa may dégg eh! la population écoutez écoutez s'il vous plaît la population sénégalaise depuis 1960 ñu ngi dund souffrance ci benn bande con boo xamante ni ñoom seen biir ñoom ñooy jël suñu alal di ko sàcc suñu éducation dafa am problème santé dafa am problème et lépp am problème ah sunu bañee ménagère dafa am problème Macky Sall nee na duñ ko wax ci ki nga xamante ni moom la ñu yaakar am ci moom espoir ne bu faloo incha allah dinañ dundee sunu alalu réew ñu jàpp ko bu ko neewal doole mais mu nee